ki jërë ngeen jëf ñu ngi fii ci lenn ci barab yi nga xam ne nii Serigne Abo Gueye mu Serigne Saliou sëriñ Abo Gueye mi ñu baaxoo min ca tubaa Ñanka waaye fii mooy daaraam ji nga xam ne moom la dëppee tubaa Daaru Tansil ñu fekk ko fi nag fas yéene ànd ak moom waxtaan rek ànd fàttaliku jàmbaari lislaam jooju nga xam ne xam ngeen ne ci wi ci atum 2007 décembre di ñaar fukki fan ak ci la wàccoon liggéey muy jàmbaaru lislaam jooju nga xam ne mooy sëriñ Saliou yàlla nañu ko yàlla fayal sëriñ Abo ñu fekk la fii gannaaw buñ jógee ak yow. Euh, Touba Ñanka ñëw fii ci tubaa Daaru Tanzil ñu jox la sunu kàddu rek fii ci Touba Info nga nuyu ñi nga xam ne ñooy seetaan. di nuyu ñi xam ne sunu kàddu mën naa mag fa ñoom ci wet gum doon di siyaare xalifu Serigne Touba bi di Serigne Sidi Mokhtar ak ñu bokkal maam ñëpp di siyaare ñu ma bokkal yoon Mouride yëpp. di jox ko bokk diine lislaam ji nga xam ne ci la nu bokk nekk nag Sëriñ Tuubaa tënkuñu ci dellu nu tënk itam ci lislaam ju rafet ju nangu ju ju cosaane muy yoonu murit moom mën naa cee wax ndax ci laa waaye li nga li nga xam ne daal moo taxoon Seydina Muhammad yàlla yónni mooy ak jaahiliya muy ak ceddo aku jubadi aku kéefër ak société bu yàqu moo taxan yàlla yónni ko diine lislaam ji loolu du sar du soxla woo tudd ay laay alxuraan wala ay addis waaye loolu moo taxan mu ñëw yonent bu yàlla mos a yónni itam lu mel noonu laa ko tax a jóg waaye yonent bu daj àddina kapp nag ñu ne ko ci nit ak ginne te du ñu yónnee kenn ginnaawam moom Seydina Muhammad la ma bi mu ñëwee itam li mu fekkan ci jikko yu yàqu yëpp ak ak la ko nuru lépp ak réere gi yëpp yu yu baree ko waralan waaye benn bi moom mooy nit moom bu gisul ko ko ko nii nii la te mënut a ñàkk dem mën naa riir kuy dox te néewuñu ko fii yoon wa te xamut mën naa riir riir gi kon loolu bokk na ci la ko waral yàqute jikko yi nag ak ceddoo gi moom topp seen bakkan moo ko daa def ndax topp bakkan mi ngi tàmbalee ci kóob doole woon ko ko te kenn du sañee téye sa loxo loo loola neex nga def ko te kenn du la ni diit mu feeñeen ci sëy yi feeñ ci àndin bi feeñ ci tool yi feeñ ci yu bari Seexuna Ahmadul Xadim nag bi mu laataa ñëw fekkan na yonent bi lijjanti lislaam bam bam ne cocc tegu ci yoon ginnaaw xulafaa raasidiin yi xalifa yi ñëw ginnaaw yonent bi ña ca natut woon seen bakkan dafa bari te dafa bari lool sax loolu daanaka bi yonent bi làqoo seekal bi mu bi mu dund rek bi mu daataa jeex takk lu wàcc wàcc yoon wi yonent bii ni tàmbali naa bari loolu nag la ab laltaay la lii may wax nii ab laltaay la ci li nga ma bëgg a laaj ndax gune yi nga xam ne dañuy faral di yër ay siira ak ak ak bu ñu seetloo Seydina Ousmane mi nga xam ne diggam ak yonent bi mutul sax fanweeri at ak xilaafaam rek ci la scandale yëpp tàmbali te booba moom li mu war a doon doon na ko mat na waaye nit ñi dañoo delluwaat ci ay ay jubari yooyu yu may wax ba ku mu jëñ doon xalifa rek ñenn ñi xeex la ñenn ñi delloo si waat lañ nekkan ba yonent bi ñëwagut ñenn ñi nanguutuñoo joxe galak ñenn ñi lu ñu leen sant ci lislaam ñu lànk ñenn ñi ne tey ma doon xalifa daa gis sax ñaar ñu bokk ndey ak baay kenn ki war a doon xalifa moroom ma ko di ko toog fa ñu ngi ci biir siré yi di jëfandikoo seen bakkan ba noppi ko wéer ci turu lislaam loolu nag kon daa daal di euh, la yonte bi fekk nit ñi bu ñëwagut ñu dellu si turu lislaam yi nag ne fi waaye bu ba turu lislaam yi ni mel bu ma ko bëgg na leeral mi ngi mel ni garab gu baaxoo am na ñett am car amee xob mel ni mu war mel. ñu ñu ñëw nag ginnaaw xulafaa rashid nii dagg dagg ko ca ca ca kii ba fa fa fa fa bàngaase war a tàmbalee wut fa ëkkub kese ba nga xam ne lislaam fa nekk léegi waaye amatul ci yilimaan ji jiite ndax mat nañ njiit amatul ci kii waare ndax li may wax ne la amatul ci kii kii woote ndax moo war a woote yooyu yëpp amatu si boo dikkee daal dañ la woon ne la lii eh, garabug lislaam nga gis ko mu ne mu ne sàng noonu wow koŋ waaye lenn loo mën a jariñoo du ca ne booba nag lak ngirum tasawuf sosu ngirum tasawuf ñi ngay digg ñu ko wax booba la sosu mooy benn benn nit ñi bëgg a rawale seen pas-pas bëgg a jaaral ca la yonent bi jaaral dañoo génn ci toppee ak ak ak i topp ay xiraafa ak ak i ak i ak i njiit ak i geer dem beru yi ci xuri garab yi jaxasoog bàyyi ma yi ngir rawale seen pas-pas ba kenn dootu leen limaale ci waa dina ndax geer yeeg yëpp itam limaale waa dina ñi rek koraat loolu nag de lu bari ba ci maasuk Sëriñ Abdou Xaadir Jilaani ak Cheikh Ahmad Tidiane ku ci ne poids bi nga ci tollool ci réew ya nga ne ñi ci yàlla def ay mujaddid moom yeesal nañ ca lañ man ba seen poids jeex mbaa ñu dee ña ko ci doon jéem di ay wàlli yu rek wala ay wóoróomi ngërëmi yàlla bay nañ ca lañ man waaye taxut mu mu mu ubbiku nag ni mu war ba teg suñ mag bi moom bi mu ñëwee dafa am dafa boole am poids bi ak ndigalul yàlla li ak liñ ko koy jaayee mu jaral ko ko te man ko am jëm yi dékku ko def ko ba jeex. mu yeesalaat nag diine lislaam ji yeesal leen woo xam ni kenn mënut a xam ni lislaam melan démb ak ni ko Sëñ Tuubaa delloosee tey lu dul ku xam ñaari dund yi xam dundu yonente bi lépp 100 pour cent di dund ak Sëñ Tuubaa itam gis lim def door a xam ni dund gële mooy gii li ci diggante bi nag du ne loolu la moo tax ñi ñi ñi dundan ak lislaam te suñu bi ñëwagut daje daje jamono teg boor yi ay laaj joor ak ñooñu daje daje lenn ci tubaab yi dugg ci réew mi. bi sëñ bi ñëwee di leeral li muy leeral ñu defee ni ñan ñi borom xam-xam yi ak yan sëriñ si defee ni sëñ bi daa bëgg indi lu ñu xamut tubaab bi defee bi day jëmbat nguur mel ni ay Cheikh Omar Fouti yi ak yooyu fekk sëñ bi mbalaan mi lay fóot nii mu dellu saat ci cosaan waaw bu ko defee nag euh, loolu muy dund gi lislaam jooju yonent bi indi nag ba société ba mu jamonoon teeroon jag sëñ nag bi indi ko senegal gépp am jàmm mel ni ma ramel tey jii ñun toog dund googu dund képp moo mën a mën a laat jikko yi ni ma mel ndax diine ji nii amul sikk sikk ci niñ koy defee ci sayir makka boo demee ñiy dagg ay billets sax bëgg dem ñu naa leen avion yi fees na kenn ndax mu ñaata la ajjuma bu jotee ja jumaa joo dem day fees del waaraate kat na kenn xamul ñaata lañu rajo boo ubbi ni nga fay jàngalee diine euh, ci 24 heures yi daaray alxuraan yaa ngi ne xas waaye jikko yi nga xam ne moom la ñu na a tërbiyee nit ki ci waxtu bi muy doon gone di jàng di ko boole ñu koy yar di ko bañ loolu bon di ko bëgg loolu baax di ko gëmloo bàmmeelam di ko xaman ne da nga ma si wéet ak yàlla loolu moo moo mooy moom lu mu gën a néew cim réew ña ña ña xam loola di faaru te bàyyiwuñ gone yu ko man gone yi ca war a ca war a ah, ga ñu ne ca amuñu kilifa yu leen ca ga nekk loo leen ci ba noppi ñu ba leen amul benn saafara bu nit mën a indi ci àddina bi bu teeyee ban googu am faw ñu gëstuwaat sëñ mag bi dellu ci moom ci ci cosaan te dindi ci nag liñ tudde moderne ndax moderne ci ay xalaat lay bàyyi te bu dee xalaat yu bàyyi ko ci tubaab moom la ca am intérêt ci àddina le la la ca la moderne ngay jëm waaye yoonu ñu ci diine ba di ci xam nañ cay moderne cosaan loolu sëñ mag bi indi nag. bu ñu amee bu ñu yàlla dimbalee suñ njiiti diine yi loolu gën leen lépp ta nangu ta bu leen ko gën a lee ci saayir nii ci cay bët ñu di ko dund donga yi toll ci war a dem daara di door a judd seeni waajur mën a muñ seenu ñaq mën a muñ li ñuy dégg te joxe doom yi comme noonu ko suñu daw doon laaje ñun nangoo séparé wu itam diggante buuri addina yi ak ak niti diine yi nangoo teqali ko mën nañoo dëkk Sénégal nag jàmmoo waaye duñ bokk nag ay tool ci la weneen jiwu di mën a màggee ci biir gone yi ba bañ la bon gi am loolu nag bu ma la ko bëggee leeral ba nga xam ko mooy ko tedd ki bi mu ñëwee wutul wutalul boppam ay noonu. maanaam ñi mu fi fekk ñu di jàngalekat di sëriñ yor addina bi néew li ñuy def baaxut moom dañu si feet rek dem fee fas yéene nekk ci lu wér ko fa fekk mën la man kat kuy ànd ak man ci nii ngay ànd ak man daa nga daal dem sampurub tab la di woote néewut bi sangam daa am lu muy ubbi demut ci dëkkub jaambur dëkk fa daa dem fu kenn musta moom te xel nekku ci ne ko moom te benn buur it musu ko yilif ga nga Touba mooy mooy Carrefouru Sénégal Carrefouru bu dee mooy mooy ni ma ko déggee mooy fu tëli yu bari daje daje fi ne jumaa yi Touba ji jumaa yi Touba digg ma diggu Jolof mu tudd juróom benn kilomètre waaw waaye nag digg wa ak siwut woon Touba mooy ca kaddu boole ji soo jaaree nii ci wetu Saalum boo duggee suuf si Saalum si tuuti ci njurul daal di gis fi Saalum yeman moom diggam ak jumaa ji mu tur fukki kilomètre juróom-benn boo doxee ci sow bi nii boo weesoo dala bu tuuti gis fi babal yeman soo duggee jógee Kajoor boo ak seen mes rek Balla gis fi Kajoor yem muy ding leer boo xam ne yàllaa ko fi bàyyi woon buur musu koo moom xam nga kon. bu ko kenn mu ne mu ne fi nag ku ko fi fekk nag man la man ko yàlla man ci nii la ñuy àndi tubaab yi itam tappasu leen géerut ak ñoom attaqué wu leen sakku ñoom mel na pexe ma daal daa jàpp boppam ne ci lim ne léegi nag ku bàyyi la nga ne dikk ni ko ma li nga nekk ma gën a da day am loolu dugal muy pas-pas bu fees dell boo xam ne da ngay nangoo bàyyi sa baay bàyyi sa sa maam ndax bari na ko topp si suñu tubaab ay bokkam daf ci ko mu leen mënatu ba leen a gis. te da nga daa gis ku yor géttug nag gurul jeex li xaal bi ko dugg ba tax mu topp si Sëriñ Tuubaa fa la koy ba waaye ku ñëw nag yàlla kese la lay woon yàlla jooju ñu lay woon nag tàmbali bi day nuuru lu métti waaye ci ngay nitee ci ngay nitee ci ngay xamee ne as gor war naa jomb fab lu mu moomut moo xam ni ñaa ngi koy gis moo xam gis ñu ci ngay xamee ne ab jaam ginnaaw daa wax ak yàlla contrat ni damay gëm yàlla dama ko fas yéene jaamu ci bàyyi li muy tere di def li muy digle boo nekkee ci àdduna yow képp kon nga caa ne nit nga xam ne boo duggoon ci wala yooyu woor bay bëgg a dee doo naan ngir xam ne boo ko defee defoo ko kenn ni ngay bàyyee xel ne lépp lu yàlla tere li fekk nga di ko mën war nga ko bàyyi lu la ci rëcc nga tuub ko li muy digle waroo cee jóg li fekk mu lay rëcc nga di ko tuub yemale nag nit ñi ànd ak yow ca loola ak ñu ba nga xam ne sax jotaay yi murid yi toog nii di waxtaan daawut am koo gis day yor mbaa ñu ni sëñ bi nee na ñoom de kenn du sànq sa dund koy laay biir yi da koy wax waxee nu tegg nu te da ngay nekk ba mu laaj la ko wala nga daje moom ci mbedd ne ko sama doom de xam naa boo ma defee sa baay dara la nangam de ko mën na moytu moo gën yarin woowu moom la yonent bi daa yar Sëñ Tuubaa di ko yar mooy makaarimul axlaaq boole koog nag jub nangoo liggéey bu wóor sëñ bi maanaam bokk na ci li tax nit ñi jaxasoo buur yi cedda yi bari ñii di ànd ak ñii di doon leneen bëgg a tedd te duñ liggéey te loolu nag moo gën a moo gën a agsi ne loolu na moom la si njëkk na dindi maanaam gone gone gone gan sax ba buñ ko ko masaan a jox te demee ko ci daara ja day fa bu biteel jox ko ne ko xoolal mel la ñuy dee ko sol ci biteel bi ba mu fees nga yit na ko ngir bëgg rek maay tàmm bañ a def loxoy neen waxtu wu ne xaaju guddeeg njëlëg lu ne maanaam nit ñi mu ngi taxaw tem ci ñu not seen bakkan ci ñemee aw ñaq ñaq yi moom boo ko xëyee faw buñ la yëbee nga dem liggéeyi loo yore sa bopp sëñ bi ñim jur ak seexal yar leen sëñ Saliou da cee agsi foo xam ni xaasam na waaye ñi ci des itam noon la noonu la leen sëñ bi installé woon ni ma la ko misaale woon te ña mën a fan fanweeri nit ka mën a defar téeméer kenn ko ne li nga àttan moom da nga koy yónni ci tool bi waaye nag defaru cosaan gi daa jiitu woon mooy dañuy bëggante koo ci seen xam ne yéen a bokk lu ngeen def.

bëgg a wane man de Sëriñ Tuubaa li Sëriñ Saaliw yoroon man sama loxo dong la ne bokkut ak li Sëriñ Murtalaa yoroon nit ñi dañuy wax waaye sama loxo la ne xam nga lu doon kii war may cosaan ji itam war may cosaan ji ñu sàmm ko sàmm koo xam ni waxuma sax war ma ko sant Mbàkke dama ko jëlee li moom waaye gis nga bagage yi Sëriñ Tuubaa yëpp murid dawu ko am fasu naa du góor yi yu mel ni wisin muy war benn murid ñu wut mu am sa kër ngir bañ a nuru Sëriñ rek xaftaan yi mu daa sol kenn ñimiwu ko am lali lali lali bopp xànjar yi nga xam ne ci la daa teg sikki yi benn sëriñ ñimiwu ko am xeeti sat la yi mu am sax ñimiwu ñu am sat la yu ko nuru ngir bëgg a gën a nuru ne noonu murit lañ waaye du ñuy sëriñ léegi sii booy xool ñaata nit yi gis ab ab ab sëriñ am ko nga ne boo ma amee jàmm fi mu ko jëlee daa ko am boo dikkee ci mag mag euh, jumaa gi doo xamee waxtaan mbàkk mbàkk yi yóbbu gi war ma jooju ñu war naa laan Sëriñ Tuubaa da leen a mayeen baatinu waxtu wu ne ñu li ñuy ñaan yàlla yàlla di ko nangu maanaam donga yi nga yar dañuy yomb a yar ndax fi nga teg sëñ bi fi la donga yi teg ñu gëman sëñ bi gëm yéen woo xam ni loo leen jox du faraan ci loxo loo leen jox rek ndigal la ko fay ba fi mu ne daawoo dégg ñu naan maam Cheikh dafa dafa bëri alchaq euh, ba am na at moo xam ne tubaab yi dañ ko ne fokk nga joxe sàq yi nit ñi dundee ko li ko def mooy ñàkku taalibe yi la ñuy wut a lekk te sëñ bu joxee gut ndigal ci lu muy def mu koy bay dafa teg rek. bu sëñ bi nee nag ba jox barab sàng maa di ba jub waaw loolu nag kon bokkoon na ci li ñu rawee sëñ Saliou moom mu nag mujj gi mu fi mujj bi may yeesalaat yoonu murit ñu ñu mu bokkalan sëñ Tuubaa ci ay seex seexaan ak ñu mu bokkalan bàyyi daa dem ba def fi mel ni moom ci ko sëñ Tuubaa jur yar ko mu boolewaat nag secteur yi ñoo ñaa yoreen yëpp ak seeni cosaan moo tax mu sañoon a taxaw nag fi benn barab laajaat ñëpp nga xam ne ka jibalu ngeen nekk ka jibalu njóobeen ak ka jibalu njaayeen ka jibalu ngéyeen da nga daal di bàyyi xel ne yow sa doom ji warutoo ko jox kuréel suñu Saliou ndax moo ci wuute ki ki ki ko war a yor te la muy cay man bu kii mën a nit amatul fu mu toog def ko ndax beru beru nii ak ak nit suñu Saliou ni ma ko sañee ma ne ko ni bari na ñun buñ ko ni bëggee woon tubaab kii état du ci ba ndax dana la tappaas mbaa mu ker yàlla mbaa mu wutal lay wujj ci yeneen i tariix tal la ñu ciy jublu mooy yaw boo doxee ni nga war a doxee bu la ci ñëpp toppee boo bëggee daal état bi mu daanu moo tax ñaari toujours ñoom dañuy firi nit ku mbooloo ma topp tam jub sëñ daa boole woon doole yi fokk nga respecté ko ndax mooy koo xam ne fu mu jëm fa la Sénégal jëm am itam ci barke loo xam ne mën naa yor boppam te état du ko du mu jub kitam ci tam ba noppi ëpp état xam-xamu ni ñuy yore réew mu yarante nag loo xam ne pagguteefub Sëriñ sint la ci Sëriñ Saliou ndax dafa yaran ay général yi général yi général te ba mu doolagul xalifa yoo xam ne benn général bu ci ne mën ngaa wuutu ab seex ci yaral ko mbooloo bu la booleeg mbooloo mi mu samp nag ay daara fab mbooloo yooyu muy laaj teg leen fa fam nag général yi cosaan yooyu yóorlee leen mbooloo mi nag ni si suñu diggante nag di capitaine mu mag di nu di seet jafe-jafe yi di seet lëj-lëj yi ubbi ubbi boppam it ba ñëpp joti ca général armée bi nga xam ne moo yor daara ji waxtu wu ñu mën a gis sëñ bi du am day doon baadur day doon day doon république bu ñu baddi boo xam ni sëñ bi moom moo yor daara sangam sëñ bi lay seet waree sa mën a gis sëñ bi muy quatre heures wala cinq heures wala six kenn naa ko wenn waxtu nga koy mën a gis amul. ñaareel bi ñoom ñooy soldaar su si war a war a war nekk ci armée bi gone gu ci ne bala laa sëñ bi yóbbu ci dala da lay ñemeloo boppam ba noppi gëm loola ni la bul ma bindub leetar bul yónni kenn ci man fa man saa ma ñëwee ci daara ji sama kees gee teguma ko fa ngir dara damaa bëgg ku ma soxla fekk ma fa ku dugg wax ma say soxla kenn du ko fekk boo génnee sa morom ñëw bu boo ñëwee Tuubaa itam bu fajaree bu jullee fajar ba noppi dañuy tëj kër gi indi indi donga yi fi fanaan te jóge ci daara yi kenn ku ne mu wéet ak yow wax la li ngay koy doyee muy joyante bu ko defee bu dee yow li nga kalaame mutta kalaame da ngaa juum man la murid bi wut baax kat du doxee nii nii la daanaka nag sallaaw di ba fi suñ tubaab diw ma sa mel ni nangam waaye nangam ma ko ci toppee wax waxi mag yoo xam ni da ngay defee ne sax yow sëñ bi daa amul lu mu def yow mi muy yorloo boo juumee wala nga nga jàdd du du du toroxal ci kanam gone gi day woon gone gi ne ko moom de sallaaw xam naa bëgg nga baax de la ca jublu foofa nag moom ëpp naa àgg ay dóor ak yooyu moom ëpp na yàgg waaye nag bu tax nga jàpp ne daa juum salaaw daa bëgg nga baax rek ndax yow doo ko fay doo ko liggéeyloo doo ko liggéeyal taxawul sa baay musu faa dem sa sama jëm gi rek ta mu na nga laa yor kon nag yow itam nan la jëm ji jaral muñ la la fay dalee lu tee nag danaa ci wax waaye bu mu tax nga jàpp ne nag laa tooñ ba gone gi xam ne moom bu demaatee daa war a muñ bu gisee jàngalekat bi ne ko hii na ci loo xam ne moom lu mat lu mat daal teg suuf la xanaa xamu ni as gor li nga ko nar a toroxale boo ko ko teralee liy gën a gaaw <laughs> sallaaw suñu tuwaale yi ku ne am na gent ku ne am nga suuf waaye yërmandim ji dong la ñuy def ba tax ñu topp ko de yërmande ji weesu jàpp ne moo tane ci àddina tëral nañu suturaal alaxira itam moo moo fa tane tëral nañu yërëm mën na noo layal mën na noo layal waaye sallaaw de bu doon bu sa bopp rek kenn du bàyyi a baay ñëpp am diine di ko ab tuubeen amu ci yoon lii yee la ba ba nga ni jar mu door laa orienté waat nag ci mbir bu la jaaxalee da nga daal tekk bandaas ak sa sago waaye fi nga amee loola naqari moom bu ko daal di faj waaw di la ko nettali ci guerre yu yàgg yàgg yàgg xam nga loolu dund tey jii bu yàlla dogalan mbooloo mu mu yaroo ci loxoom ak yeneen mbooloo yi yaroo ci yeneen loxo ci ay Sëriñ Basiru ay Sëriñ Fallu am na sax ñoo xam ne ay màggat lañu ñu aman doole yi doole yi jot ci mbooloo mi tañ bay lii nag mbooloo mi tañuy def ci ñoom lu mel ni li Sëriñ Tuubaa bëgg ko def ci nit xam nga kon lay waaye fi mu ni yaa ngi wax lii ay benn benn nit danañ ko gëm waaye fi mu ni bu subaa mënoon ngaa daal laaj keneen koo xam ne lay doon te day jàpp ne moom moo ma gën a jege Sëriñ Tuubaa wala maanaam moo may mag moo lay dugal dugal dugal ci. léegi da nga xew ne daar yi sëriñ si lii la ñuy def euh, booba jamono ko laaj jamono moom minute nen yow yaay yaay soppi ko di mel ne waaye jamono moom nam daa fenk lay fenke waxtu bi weer jënd bi ak so cay so taqoolu in in tarham wa tanfu wa tajut takun muqaddaman wa xawma ka tasut wéy na ni loxo bi añ ma xinaa soonu satin li koy uqi ma diinaa sëñ bi sëñ bi dani bi mu ñëwee laay biire ci la taxawal diine du la wedd li nga yor du la ko sabooteel du la ko yàqal boo ko laajee mu wax la lu baax loo xam ne dana la wëri amu ci intérêt mu ne njiit nag da ngay yërëm nit ñi ba yàlla képp ëpp la yërmande ci ñoom nga di leen jéggal li ñu lay tooñ te fa a fayu te mu wóor leen yaa leen jéggal waaye am nga noo fa yor di leen may ci li nga yor te ba léegi nag li nga yor ku ko def mbooloo mi ñooy ñëw ne la doy nga noonu jiital nañ la loolu wax Sëñ Tuubaa la Sëñ nag loolu daf ko daf koo def xam nga ñoom. suñ sali wu yeete na ci ba tàyyi bàyyi leen bu ñu nee bisimilah nga ne sëñ bi ni mel kenn mënu ne mel nit gën la du teenga nga roy ko te ki jéem day daal di gën ki jéemut taab tànk boo ko dee xañ fekk dëboo dëboo borom bu la de katandu bu kii dana dana la gis ndax tànkam la toppaat léegi nag jàpp gi ñu jàpp ni li suñ taa doon def ak doomam yi day xeetu xar baax wala lu fi jaaran mooy mooy mooy lëñ ñi ndax sëñ mag bi biir mbooloo yu musu ceewa mën ci ci ci xar baax musta am man na laaram ram nag ci xar baax wala mu wallu la ci xar baax waaye lim li ngay wut moom ci ndigal ak la ngay def mu lay tere ngay bàyyi ba mu noppi ceew ca nga koy am sëñ Saliou itam noonu waaw fi mu ne danaa yëg ay yoon yi koy ko yëgee nun ñi di di siburu ni ñu siburoo di amee gàllankoor. waaye xam gi ma xam ni ku bëgg yoru nit fokk nga mën ba ba ba féete leen kaw ba mu wóor leen ni yaa leen man mooy tax ak ci jolle ngay waare ab xiiwan ci koy na téeméer xam ne ab yaafus mënut a mënut a doon capitaine ah kooku te dàq du a gaynde xam nga ku ku doon doomi Sëñ Tuubaa nga ñëw bisu ajjuma fekk ko nit ñi di ko rang bëgg koo jox magal gu mag gi yër dem lay doon. fenn fu ne ak girim taxaw fa mbaa mbaa mbaam xar mu wóoree ni lii lépp ci moom la jëm si mu mu ne ko fa tegg di liggéeyante daara ju ak diwam manki wa man njurul toog naa fi bañ ni tey la màggal gu mag yi ba jant bi sox sëñ bi fab keesu attaay jox ko saaliwu ñëng nee nañ ko jox wata laisser passer Lamine ñëng yóbbu ko ndax yëgal na ni waa njurul seen attaay demagul ca guddi màggal ga la de bisub gaawu njurul xam nga. loolu dana dana la doy ak waaru yow mi ko gis ndax da nga xam ne kii am na leneen lu ko yitteel lu dul xaalis bii ñu koy jal ak gëlëm yi may gis te li leen koy doolee xamal mooy ña ko koy jox du leen ne kat ngeen di diil si du leen ne li ngeen ma yëddee mënu fi woon a ñàkk du leen beral néeg yoo xam ne ab donga mosu caa dugg duñ dem mu gunge leen te du leen dig ngan du la yónni mukk itam ne laa jaaral ci diw dal fa moom yow mii nit coy da nga xam ne kii am na leneen lu muy gis lu bokkute lii nit ñi gis ndax yii ma lay wax yëpp ay la yoo ni tey jii boo doon nitu addina da nga koy topp jël seen i conne euh, seen i euh, numéro téléphone xam seen i adresse di leen boole ak sa doom mbaa sa donga ak yu mel na léegi nag yow mi nekk ci daara ji lëjal ko witti te amuloo ko benn njëriñ te li ngay bay lépp benn donga di ko ko benn taal bi di ko jox ci addiya ci mat ci yow lay son nga xam ne séddale képp bu koy def ci lañ benn daara ju ne des na ca yàlla ndax dañuy jàll ko léeg-léeg nga nga gis koo xam dañ ko yow daal lëjël nga nit ñi boobu tey yaa bii baax na mu dikk ak sëñ sëñ bi ne bi ko saako bi lu mu yàgg-yàgg dana jël muy tànn di tànn ba ni lii lay jël ñu fabaat saako yi yëpp wuteete ci yeneen daara mu toog nii ma toogee di seen ñëpp lu mbooloo bari bari bari bari bari ceeb di saabu ko dongaam rombee mu xam ne képp dongaam te loolu xeetu xarbaax bi mu ci am man dafa dafa ëpp bi bu bu ca ba muy amub jot doonagut xalifa day bàyyi ba suuf si sedd guy mu yor sat la xànjar ak potub desina ak ak ak ak ak ak paquetu ak kii potub niwaay kin woo koo xam ne dëkkut ci daara ji maanaam gan ñu ñu muy àndal kenn la ciy woo yor bu lampam bu dikkee fekk gone yi xam nga gone yi fa la njëkk a jot la ñuy tëdd mu bu fekkee mu tëddee jugut mu ne ko jekkal ko te bu mu te bu yow bu bu gisee mu mel ne ko xooy mu ne ko xoolal ma ko ba xam am nay góom déet bu fekkee ay góom na ci ginnaaw gi dafay da ko naa wogal mu mi fa sat la gi daal ni bisimilah barke suñu Tuubaa raxas ba mu set mu dal si la gi suy ci ne ko muuraat ko ba mu doon wut xalifa ci loolu lay fanaan mës naa ñëw <laughs> mës naa ñëw ci daara yi daara joo xam du ma wax turam ànd ak genn gan goo xam yàlla xam ni mel ñuy dox ba ci yàgg gën gi ne <laughs> sëñ <laughs> ñëpp ñëpp di cell ñuy doxaat ba ci yàgg xam nga ko ñu daara ji ci la ñuy def sawukaay yi mooy tax <laughs> sëñ moom li xeeñ dama yaakaar xalaat di di xëy sëñ bi daa am waaw man de wax dëgg yàlla mu ne ko ah, man de man de loolu man de li ngeen di xeeñu man de bàkkaar may waaye man luy jógee ci nit ñi du ma xeeñ boo nekkee nit ku yor bàkkaar nag moom damay liggéey lool te du ma ko mën a jógal dem. waaw daa da ko ne mën ngaa dem tëri moom ma maa da bàyyi damay def ci kenn mësu koo gis na Jaañ mii am na bis boo xam ne ndax xamal ne sëñ bi li koy li mel yàlla rek ko xam gon xam nga gone yi gan yi nga xam ne dañ leen a jëble te demaguñ daara dañ leen a bàyyi ci ci keesu sëñ bi wutal leen fi am mbaar ñu fay teg seen i saako bu sëñ bi xëyee bong bong ak ak xaal eh, ak ak léemu ba bañ leen di yóbbu am na góor goo xam ne dafay ñëw ci biir xilaafa gi xam naa daal benn mu ngoonee ñëw wala ubbiwul bunt yi wala mënut a gis sëñ bi te yàkkamtiwul waaye nee ñett doomam yu mu jàpp jox sëñ bëgg na yéen ubbi bunt yi gone yooyu génnan dong dongay kër gi am ci ñu génnan bañ di leen jëli biñ leen di jëli nag ñett ñett ñi nga xam ne seen bàyyi lañ ànd lan te jébbaléeguñ leen jaxasoo ci fekk sëñ bi werd ba caa gone teg daan hmm. ñu ne ko gone gan yow hmm. kenn ku ne daal di jaaxle xamuñu lu ñuy wax bi ma àggalee werd ñii ma romb am na ci ñoo xam ne jébbaléeguñu maanaam duñ du bokkuñu gone yi ma léemu ba noppi barke sëñ Tuubaa dem leen seet ko ñu dem seet ko muy ñett ñoo xam ne seen baay joxe gu leen ñu ñëw sëñ sëñ bi ne leen yéen yéenay kan ñu ne ko suñu baay lañ àndal da laa bëgg a gis mu bool leen nag nit ñi ko demal jëli leen. bi mu ñëwee li ko sëñ bi di ko wax mooy maa ngi jégalu bu baax baax yan fi ngir sama jëmm ji ma nekkal fa sëñ Tuubaa mënu wax ci man day naqare na ma lool daa toll damay kenn te mënu maa ni fépp day xool koo xam ne yow ba ne ñu la jox demaguñ dara sax xàmmee nga ku ca bokk ku ca bokk kooku du laa xam ne doomi jàmbur waaw yërmande jooju nag ci la wamatan kenn ku ne ba mu gënal la sa ndey ak sa baay ndax dana la wóor nii la yërmee sa ndey ak sa baay mu leen yërmee njëriñ li ci jaxasoo xam nga am na bis man ak sëñ Abdou Guèye Mor Sall taw bi si sëñ la sëñ bi ni nu sëñ Tuubaa yi daan ku jóge woon Xuru Mbàkke dem fa mu ne ko anam bay jaxate mu ne ko maa nga fa rek de xam nga maa nga fa rek ak kalaame la sëñ bi ne ko a ah, maa ma nga fa rek waxee lu mu doon mu ko ah xanaa tàng rek te daanaka du wax jàmm du ko dig nit sëñ bi ni ko kili sëñ sëñ Saaliwu ni sëñ Tuubaa nee na kilifa tàng du lorom ñàkk njariñ mooy lori sa kilifa ñàkk njariñ ak jubadi mooy lori kilifa daal ni bu ñàkkee njariñ moo dénk yam suñ mag bi mos na leen dénk ñoom ni leen dee leen jariñ taalibe yi di leen yar ndax koo yërul lu mu ñàkk àddina ak alaaxira yàq ko xañ koo tamal njariñ te ko ba léegi lu mu ña lu day defee loolaa do ñoom lu ñàkk moo ko xañ te yaru kese daa métti gor su néew ko man a muñ léegi nag yar bi boo ko dee def di fab njariñ di ci dolli njariñ li la du mën a ñàkk moo tax dalay néeg a daggi ko bu ko defee da ngay mel ne gone gu loxo ba damm ngay fa miski di def ci gimiñ gi mbaa tàngal tey ñoddi sëñ Saliou moom xawma ñi nekk ci taax yi te tërbiye wuñ waaye ñi mu tërbiye amut amut ci ñoom ku mu mas ne boo demee demal gox sangam di fa woote leen loolu amut ci yarub suñu saliw dana dana di digal ni nag ne boo demee li ma li nga nekkan ci daara yi digal naa la nga ne ci daan maanaam léeg mu téye ay nit du leen yëwi mel ni sama jëmm ji ak ku mel ne sëñ bi ñu ci bari bu lay indi ci dëkk bi dala naa li nga nekkoon ci daara gi laa bëgg nga ñëw Touba nag nekkalee ma ko fi ndax ñëpp mënuñu ñoo dem ci daara ji bu ko defee ñi ci jutiwut koo ca doy bu la joxee doomam jàppal ne maa la ko dénk waaye nag amut woote kenn ci lu ko ñemee sama table ku ko romb xam ne lii daara ma amut jëlee naa nag mooy woote ay conférence ak a wootee tere yooyu loolu ñu loolu waxuma na ne daay waaye dama la jox layu li nga ne nangam loolu it bàyyam la ko nuru baayam la doon loolu gis nga Cheikh amu ci kenn koo xam ne suñu tuwaale boo demee ca koñ ba nga jógee woon ñëw fa na ni leen dara maanaam li mu def ci yow la naa te ko ndax moom la ñuy wut ak baax la ñuy wut xam nga ndox ak pepp ko yor toog kéewul jël moom bu ñu xaaraan rek sa kër boo ko joxee bu demee comme dajal dana lay demal ci kër diw yow da ngaa yoru te doo tooñ loo am bokk nit ñi tur waay am nga bàyyee ko doo dem kaso doo doo mosu si la faa yóbbu te nangu nga liggéey doy loo nga li nga am sant nga sëb sëriñ doy na la. te bu jaamu yàlla jotee da ngay jaamu yàlla ba mel ni eh, eh, yow dong la yàlla sant jaamu yàlla te dañuy tere kenn mos ko gis sa kër maa ci saw lam yi ki gëlëm ci yàlla tey wut yàlla bu la gisee lu ma san a jàpp te minute noonu dana ko wàcc bu la jàppee dootu gis lu gën loolu ba dala wàcc di jàpp te ko léegi nag nun ñii loolu lan nun digal maanaam téye saw làmmiñ téye sa sa sa sa sa li ngay def te toog fa nga bàyyi koo woon mbaa fa nga bëgg a dëkk Sénégal te yor nag la nga jëlee woon ca daara gi ndéem jëlee nga waaw Serigne Saliou Touré mii mboolem ñi jébbalu ci moom kees amu ci koo xam ne benn sëriñ jàpp ci loxoom na la Saliou Touré nag jébbalu ci moom tey jëkku ta yor kees Serigne Abdoulaye jëkk na yor kees ba faatu waa kees dikk di wutloo seen laaj yilimaan ma boole leen ak Serigne Abdou Khadir Serigne Abdou Khadir jëlee ko ci loxoy Serigne Saliou yóbbu ko ko teg ko fa yóbbu ko kees teg ko fa mu yem ci jiite jàkka ja ak yee taalibe yi ak miraas leen ba ñu xëy xam ne mat na am Serigne Saliou fa mu ne ku gis Serigne Saliou mën nga caa jàpp loolu nag moom lañ soxla ci nit su boobaa nag loolu du la lorati maanaam addina boo ko fiitee kanam ak bànneex ak bakkan du la waaye boo ko boo ko gàttandoo mooy li si doxal rek daraja boo ko gàttandoo mu jot la am am boo ko fayee mu yàqu ab juddu boo ko yokkee wala mu des waaw daara ji moom nii laa melaan nag yooyu mutu ko yow ni ngay mel fexeel ba ku la gis bëgg dem ci daara ji rek loolu moo doon cosaanal yoon mu rek waaye waaye nag li nga wax nii danaa ci laabiri laabiri goo xam ni masan naa am jamono yonte yàlla Moussa suñu tubaab waxaat na ko ginnaaw bi jamono yonte yàlla Moussa daa am koo xam ne dañoo ñëw di ko nuyu ay soxnaam di ko nuyu ci fekk mu doon mbaam xoox ci kawub lalam ñu nuyu ko mu yëngal ci cëri tànk yi benn ñooñu fëgg seen gémmiñ dem ca muusa wax ko Moussa laaj ko suñu borom mu ne ko daa wër naa Moussa nee na ñooñu jàpp ni Moussa moom lu ma wax yàllaa ko wax ni jàpp ni ak wax yu la di ko jëf te yow waxoo ko yónni woo ko mu cee dajale nag loo xam ne ci la ñu koy fale ak di ko ci jox alal loolaa tax ma soppi ko ngir ku ko gis duutu ko def moom it duutu ko def loolu nag ñiy diglu na xam ne ba ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam am ñëwee dadaa am xëy na daan xaasi yooyu soppi nit golo soppi ko mbaam xuux soppi ko ëkk dadaa am si Sëñ Tuubaa nag bi mu koy wax njaarim daa toog ba ci yàgg mu dégg kuraa ku tedd ki nee na mu ne bu subaa ca yor-yor bi yi fi jege nañ fi ñëw bi ñëwee mu nettali leen xasab yii ma waxan xasab bi sax am na ci téere xasal yii ci Iyaam Ulumuddin dini sëñ bi ni leen nag Seydina Muhammad bi ko yàlla sàkkee mu ñëw yor melow doomu aadama yàlla dafa teral yonent bi ba nangootul ko soppi doomu aadama mu rib ëkk mbaam mbaamuy mbaam saa yir si nii kenn du ko mën a soppi waaye baatin bi moom nañ daa def koogam ba tey ngi koy suñ tubaab ko maanaam soppi baatinu nit muy catan catan ki mbubbam ba noppi te yor meloo xinsiir ci sun borom ah, wasiituhun tasal fil bilaa nu kal xarit la dara man mi ngi téere suñu tuwaay sax loolu mat nay matu te fi mu ne lu waay waxal suñu tuwaay wala waxal ko suñu murtaa wala nga waxal ko suñu Abdu Samad suñu tubaab wala nga waxal ko suñu mun mun soit te du dëgg wala ko suñu tubaab moom te du dëgg atte booba ca ngay tàbbi ndax taalibe yi dañ koy gëm mën ko ñu jox ko mën nañoo soo loolaa tax mën nañu laa gën a loolaa tax ba noppi nag te loolu te yow li nga wax amul tey ku ca ku ca sukkandiku sànq nga ko ndax day defee ne lim sukkandiku ni la loolu itam bu doon sañ naa ko dinaa fàttali bu baax loo xam ni bu ma sañan ñëpp danañ xam ne ak labiir la ñi nga xam ne dañuy am mbindum Sëñ Tuubaa ci cosaan san koo gis wala ñu masan koo am wala ñu doon ko di ko roy di ko roy ba buñ ko tegee fi barab ni mbindum Sëñ Tuubaa la nit ñi gëm ko man de du ma ko def. waaye bu ma seen lu koy def bàyyi ko ndax loolu lay jur ndax mbind bu fekkee da ngay roy araf yi nit ki roy ni muy tëralee ak sattaar roy ni muy ay baat roy rajj gi ba noppi bind ko def ci lat koloñ tey defoo ci saw tur ko bind di di ko joxe wala nga di ko taf ci miir nit ñi dañ defe ne mbindum Sëñ Tuubaa la mën naa ciy joxe nag ay ay ay ay garanti waaye du ma ci fekk man ak laabire rek laa ci ndax ñi koy def roy Sëriñ Tuubaa ba nuru ko ma mat naa sant yàlla waaye laajoon na daal ñi koy def ñu ciy bind seen tur moom ba ko gis xam ni kii kat day jéem waaye du ko tedd man si Moustapha Xasida mi daanaa gis ma di ko def waaye ci ay feggu laa ko ci def ko jox Sëriñ Saliou maa suñu soñe ko ko noonu daal di ko joxe noonu ak ak bàyyi ko noonu. tey day mujj mbindum sëñ mag bi day lënt ndax koo ko joxate mu ne man daal lii daal nuroo léegi ba xamatuma ni moom la am dit li ma wax ca lee nag moom lii ñoo xaw a nuroo sëñ moom jox baat nit muy wër di ca laaj wala am foofa féete foo xam ne sañ nga caa laaj nit ñi wax dëgg yàlla man fay nekk nangu ko woon te bañan na ko te da ko laa tere it waaw saabu yii fii nit ñi indi ak yi yëpp daal ñoom ñoom ña ko bokk ñoo daa seet ba jekki-jekki def ko te ca ñoom lay yem waaw ca ñoom lay yem maanaam mbay jub dajale ñam bokkal mbuur ne na jënd kecax yóbbu loolu lañ daa def daawu ko génn sëñ Béthio ñoom ñii añ ñu daa yooyu Ndakaar la a daa seqal du dem Casamance du dugg ci internet du dugg ci site ay noonoo du ci am jàppal ak bàyyi du ci am tam yow ma koy indi yi yaa ngi mbooloo ma ko àndal liggéey yéene ànd boo dikkee ne sëñ bi dañu la doon jàppale ci daal ji lii noo ko fi man daal loolu laa daa gis ñu di ko def man li ma wax léegi rek. moom laa la mën a waxaat sëñ Saliou moom dunduk sëñ Tuubaa kese lay dund amul lu mu def loo xam ne ci xalaatu boppam képp la ko wéer ak bëgg def di def waaye nag yàllaa ko may xaasi lu ne moo xam ne ci sëñ Tuubaa daa def gune yii da naa dégg ñu naa sasu xasida yi dong yee ko tuddee sasu xasida yi ngir yàgg guñ ko yàgg dégg ci sëñ bi waaye dafa am xasida yoo xam ne moom lañ daa daaj ba fi sëñ Tuubaa di ne kenn daawu fa daaj geneen xasida man nga nag yorub téere di jàng yow képp waaye daaj ñii moo xam da ngay kuréel wala da ngay yëkkati yow képp dafa amoon xasida yoo xam ne yoo yàlla tànn ñu di ko ci def gàmmu gi itam yooyu le digle woon ñu di ko ci jàng yooyu nag la suñu taylu dajale woon bindulu ko seen lan mënal ko ko ñu di ko joxe mu bu ma nekkee ci daara yi moom kuy daaj yi nga sañ a daaj ma di ko dégg geneen gu waaye am ta di ko daaj na nga nit baa dem ñaareel bii itam xasida yi amut gu ci mënta jàng wala gu ci mënta denc waaye sas yu moom mooy li nga xam ne ko ci def def nga sama ndigal la nag yaay ci sag farlu la bu la neexee bind may sa donga sa moroomam donga ndax mooy moom la ñu war a denc te ku ko loo ko gën a bari le boo faatoo mu ëppal la njariñ denc ko tuyaaba la jàng ko noonu tuyaaba la joxe ko tuyaaba la las ko lañ ko tuyaaba te di ko warmaal waaye di ko wutee alal di ko wutee daraja di su ko wuteeg wilaaya di di ginnaaw bi bi geerub golfa bi ñëwee digle na ñu jàng asmaa ahlu badrin defe naa as ndiir su gat daal dinañ ko bàyyi boo ko kenn jàngati daal di indi faraj bi jaahil Mustafa an umati daal di nañ koy janga ndax lu mel noonu taxan suñu tuwaay di ko taalif te bu jàllee nañuy jàng wakaan xaqan wala xadi karam naa xisnul labraar di ko boole ci liggéey bi wu amul nag bis set dee ko après ci boo amatee jot nga di ko wétali ko loolu da bu taalib bi yëpp marché di kaaraange juy woyofal guerre yi dana am loolu noonu loolu lañ digal euh, dégg naa barki di monsieur Mountakha di ko wax kër suñu am sa poids bi suñu am suñu Mountakha am ba wax ko man amuñu ko moo tax ba mu ko waxagut sëñu ma ko léegi nag wax na ko sëñ naa ko wax waaye sëñ moom bi mu tëlee bi mu tëlee lool lool lool ba li mu mën bëreetut ci ci yaramam ca la jën ca la tàmbali di jëndal mm, nuuru dëre nii léeg-léeg xëy na mu jàng xaaj bi waaye am nay jamono bis bu yàlla sàkk dana ko jàng ci ñent bi baa mu jàng ko ci guddi gi kere bu mu ubbi see koom loolu la ma fa njëkk a laaj ginnaaw bi jàngee wax alxuraan danaa wax ni Sëñ Tuubaa bu ne indi indil téere ba ful ku lay wax mag la koy yónni ci gaal lañ koy def am dëkk mbalaanum sër muy dox guddi Sëñ Tuubaa noonu la daal di ful ku loolu la ko waxee ju wax jooju maag alaaji Modou Mamoune nag la ko suñu Saliou waxandoo benn bis fa njurul weeru koor mu ne bu indi sama téere ba nag xam nga indi téere ba la wax mooy ful ko bu nee indi sama téere ba nooru daari ne lay wax keroog bi ko suñu waxee ci njowaan la toog sama kuréel bii jàng ba bàyyi mu jox leen ndabal salaat di waxtaan ci xasida yi ba waxaale lii waaw nun ñii ñëpp itam sant nañ ci yàlla bu baax xasida yëpp lañ daa jàng ay taysi rek mafatil bis rek jaaliwut maraq ba yëpp gone yi ko ci daara ji kenn na ñaata la waaye kenn ku doomi Sëñ Tuubaa yar wala ku Sëñ Tuubaa seexal yar la wala Sëñ Tuubaa mag ma yar la wala Sëñ Saaliw mii yar la nga ñëwee def lenn a ab métier lu dul xëy liggéey wut loo loo tedde amut ci biir société bi yoon man nun ñii ñëpp ay ay kaang yu bëree baree bëri ñoo génn ci suñu loxo waaye dañ daa béyi bu jant bi soo nga taal sab gaz jàng ba dix heures nga fatu bu ko tëree nga yee say gone bu takk na ngay jotee nga ne nañ dem tool looloo amoon ci république ba nga xam ne ñoo ma magan man li ma fekk loolu la li mu fi bàyyi ginnaawam loola la waaye ñàkk liggéey moom mu tudd di suuxat du sunna du cosaan ci yoon wi tam ba fi suñ tuwaar yi nekk nag ba léegi looloo ngi am maanaam mëccoo boo xam ni day dem ba ci yàgg mu bënn ñaari wet jàll lu ko neex lay wax bakkaar wàcce ko ñu dem xëy na bakkaaram te ñaam ñama daa gis ñu mel noonu ay dawuñu woo kenn naa ko kaay def ni bul toppandoo gaa ya mën ndox kon ñu ci nga lab bul toppandoo ñu mënul ndox kon nga lab taxaru loolu mm, tey xës téere yi suñu tuwaay itam looloo ci ne léegi nag lii nga wax nii lépp looloo ko indi ñii ñi ngay tudd suñu Saliou ci kurus ñii di ko tudd ci ay reen ñii di ko tudd ci ceex gum leen seexal ñii di ko tudd ci feeñu gum leen feeñu man day wet di waxi jaamur du ma ci fekk waaye xam naa ne ñam yar moom te yoraloo woon leen recevoir fii nit du ko ci def. koo xam nag man xuma ñaata fan la am ci daara ji yoru fi woon benn responsabilité man wax dëgg yàlla du ma ko def référence xam naa ne daal lii ma xam moom mooy Serigne Saliou li am ci jëwriñ général ëpp na ñetti téeméeri jëwriñ yoo xam ne ku ci ne mas nga koo yoral daara ku ko ci ñeme moom amut doom jum jur ñemewu ko sët bu yar ci loxoom it ñemewu ko jaxasoo ak buur itam ñemewul waaw waaye liggéey ba day ca naajo di jaamu yàlla te loo am nga ba ko waaw loolu daal xanaa waaw léegi doon wax ci euh, kii bi xaw ma ko yore sëñ moom léppam rek dafa xekame dafa am tourisme <coughs> yi ñu joxe ci ay tabaski daa rek loo war a tabaski <laughs> ndeysaan da ci am at moo xam ne euh, ñii li gën tabaski eh, xam naa daal. am na lu leen réeré léegi benn jëwriñ ci jëwriñ sëñ bi ca nawun fa bëgg a jëlee teg fa weneen nag maanaam moom moo yar nawi ñu ñëw ni woon nag nawi da nga koy jox daa daara sàngam lañ koy yóbbu yow nag weneen nag lañ lay indil jëwriñ nga nag lànk bañ dem ci sëñ ba waaye ginnaaw bi sëñ bi ba noppi lam nu lay biiree tamat nag lay biir dani ñett ñu yar ci sama loxo ba noppi ci ñoom fuñ bokk dagee am lu dëng ci seen xel defuma ko waxuma ko man yëruma nit ñi ci sañ-sañ ak maa leen yi fu ma jëm ngeen di jëm lu nit lu nite maanaa xel nañ caa jaar te ko ca jaar dégg du la jam ci laa jaar ci laa nit ñi ci laa wóomat ku ma yar ku ma yar ñett ñu ma yar ba noppi ci ñoom buñ dajee barab ñoo wax fa ay wax tudd ci saw tur ñett ñëpp wax ji dëng fi ñoom bu ngeen ko toppee wax ko bokk na ci li ñu war a jàngee ci sëñ bi mooy ni mu doon yare yarub sëñ bi li tax ma matoon a jàng dafa xaw a nuroo gouvernement ñuy tëralee gouvernement te bokkuñu ndax moom li muy def da koy xam xam ni mën nga ko te mën nga ko te xam nga ne ñu koy defee te ñor na la yaa ma safak am na foo ma féetee damay sang saab der du miram te gouvernement yi looloo ca ne daara ju ne da koy wutal liberté totale suñu tëru daara gi da am na liberté totale ki yor daara gi dana ko mat mën naa mu boole te mën a yor njàngale mi. mën naa mu boole ca mën a yor jàkka ji mën naa mu boole ca mën a yor xam-xam bi mën naa mu boole ci sax euh, nuñ koy waxeeti mat ndawam ci ci ay yunnin léeg-léeg ma am ci daara complété noonu léeg-léeg am daara yoo xam ne jëwriñ ju ne day am da koy am day am ko mën a jàngale lii waaye waaye du mën a du a taxaw tool yi am ko mën a taxaw tool yi waaye du mën a jàngale waaye lu ci ne day am liberté totale ba ci am na dukat da koy am waaye nag sëñ bi li ko mat a royee ci loolu may wax daal di jëm ñëw yow ci la sa sa sa sañ-sañ foofu lay jëm waaye nag doo ko sañ a fekk ci daal di jóoni wut di fa def di waree ni lii maa ko daa def mel ni ñi mu fi ba mënuñu ko bu ko ñooñu mënut woon itam da ngay bàyyi ba mu natt ko comme ni kaay defal ma nangam waaw mm, mas naa ñëw njurul ki koy tàngalal kafe jotadi góor yi jéem ni ko ci daaw ñu yónni ko Touba man mu di ma liggéey loolu loo xam ne bii laajut bàyyi mu ni ma nag kon demal wuti koo jàpp ne mën na maa tàngalal kafe ni si tuuti Saliou Saliou ni dara mu ni Saliou Saliou mi daan ma tàngalal kafe jox ko bagage yi te nekk ci li ma la nekk lool waaye mënoon naa rek dikk di la lay laltoo ko nuyoo lay gën a ka duñu ndaa déedéet liqaam sax liqaam nii xam nga wax seere rek. bi ñu natt këru njaaru gi man boobu sax man ñurul laa ne sëñ bi moo coobare wuy ni man na nga mu fekk lagan damay natt këru njaaru gi dama la caa tànn loolu booba sëñ Moustapha si moo ko daan njëkk a noddal ci sanc bu ne sëñ Moustapha si nag faatu sëñ bi ni ma nag damaa bëgg kon nga yow fii sëñ Moustapha si nekkan nga ñëw noddal ma fi bu ñu noppee sump gëlee na nga ko yóbbu der bi boo ñëwee bu ma jàngee ba ñu julli sëñ Amet sëñ Saliou faal dab si na fa sëñ bi ànd ak Cheikh ma dëkk Njaarim yàlla dogal sëñ sëñ ki doon natt jàkka ji ki doon natt kër gi sëñ nan Busa sëñ Moussa Busa moom sëñ baaxir defe naa sëñ bi ne ko lalal der bi ba xam jub na am déet mu lal ba mu ne coj keroog bi yéem na nit ñi ndax daa sëñ bi dafa der bi sànni ko maanaam daa jug taxaw sànni der bi ne ko xoolal ba xam waaye natt ko ci machine bi mu jub xoj ci dara sëñ bi ne bisimilaay nit ñi di rafet rafet mu ne bu ma kenn liqaamal de bu moo war a liqaam waaye bu yàlla dogal ne nit bari man man ba liqaam itam da koy dindi ci daaraam yëpp nag maanaam fu nekk ka ko fay defal loola loolu nag dañu luñ ko war a waa nga xam ni ku ne li nga doon ci sa sëriñ wala ci xalifa bi da nga koy xam nag te yem ca xam nga wax day am seere Sëriñ Saas moom Sëriñ Saaliw Sëriñ Saaliw da ko mos a yónni Ndakaaru loo xam ne xaw ma mu dem Ndakaaru ci biir situation bi muy dox te àggalagut mu dégg ñu ne dafa am jàkka ju ñu lakk ngir ay lëj-lëj yoo xam ne xaw ma dañ doon waaree tudd fa suñu tuwaay ci lu leen neex xaw ma ay Baay Faal ñëw fa daal xam na ay coow daal am na fa bañ jël si ñañu ne ñoo def loola mur yi daal di rabelte dem taxaw ci biir gat bi taxaw tem ci ñu deeseeree leen ñu lakk bis biir gat bi wala ñu ca mur yi lal seen i téere yi xasida indi seen i përël tàmbalee jàng muy coow lu rëy rëy rëy sa Moussa Saliou nekk na lu dikk xam nga ni nit yombut waaw nit nit yombut waaw bu ngeen demee nag bu leen jàpp ne sa Moussa yor sama njël bàyyam moo ma yor waaw man yàlla dogal bu may joxe témoignage ci lu ko mat laa koy joxe sa Moussa bi mu ko déggee Ndakaaru mu ñëw fa ñaan ngir gis ñooñu ñu may ko mu gis leen génn maas gii journaliste yi dara ko mun leen déglu leen wax leen ñu déglu mënu leen man ñëwuma fi ngir ñii ngir baatub sëñ bi man sëñ bi dama fee yónni woon ma fiy doxee soxla ñii di sama bokki murit ma ni am na ñuy lëj-lëj ma ñëw fii di leen mastaw xam lii ñoom fuñ ci toll ñoom ñoom ñi nga xam ni lii leen fi indi waaye man ñëwuma bi su ma ma fi maa mu yónni ko ko soob buy wax wax bu yónniwul ngeen wax yónniwul waaye man mënu maa tontu journaliste ndax sama tànki bopp laa fi indi sëñ saa bi sëñ sumu saa bi mu daa daa dox fanweeri minute sëñ saa lu mi sëñ bi yónni muy leeg la problème bi ñëw waaye léegi bu fekkoon ne da ngay góorgóorlu rek man war naa mën a wurdu sëñ bi fu ne far waxaale loo xam ne bokkut li sëñ bi ko ko wax seen sal tur ñëw ñu ne ko am na ko wax ci lamiñu sëñ bi loola damate yow daw tooñ nga sëñ bi tooñ taalibe yi tooñ seen sal tur tooñ sa bopp manqué léegi nag sëñ bi loolu la rey loolu la rabee ñu bari maanaam fi mu la yem loo fekk yem fi mu ne si Moustapha moo noonu daal liggéeyante ci problème mu territoire yi ak gasoil waaye suñu digg ak sëñ bi mosu ci wax ak kenn nay mosu cee wax maanaam wet gi ko bi liggéeyloo moom moom bu ngeen ciy daje rek muy mu naan tirlu ci sa kaw waaye nag yow wet gi la sëñ bi liggéeyloo itam moom ba boo fa ban téeméeri milliards ci xaru sëñ bi mu delloo fa rombit fa laa la koy rombal ginnaaw sëñ bi moo lay liggéeyloo te dugal ko ci li ngay def doo ko ci fekk waaw léegi nag loolu kër gu ne bu nu ko mënaan dañ koy royee suñ saaliwu ci aw defin maanaam ku ne da ngay ba mat li la sëñ bi def la teyam ci léegi nag loola loola jaaxal nga dem nag ca kako si mbii def loo wax ko ko te kookaay di jëm foofu loolu dana dana woyofal circulation léegi nag bu ku suñ laaj dee ñëw ku mel ni bu dee ñëw wala suñ motulaa mu ne nag léegi nag yéen ñëpp a war a jóg bu ngeen demee nag diw mii moo yor kër gi moo yor bagage bu ngeen demee nag moom na leen wax kenn ku ne wet gi nga koy fiir ba ko defee ñu yow fexeel ba bu kafe gi manqué yow liggéeyantal donga yi bañ añ yow yaa ngi ñi ñu ñëw ku ci ku ci jariñu nañu ñaanal ñu am ngërëmu te am gudd fan ak wér te dara ba ñoo gàllankoor te lu nu suñu saa yu ba tale muy àndaar joo xam ni dama ko ñun ñëpp ko war a natt muy jësi im laat waxan muy fa nga war a féete suñu daa yoman xiyam benn bis boobu man mooy sama yitti yàlla na suñu tubaab dimbali fa àggee fa suñu saa yu bëggal nu féete ko ko fa te mel nag bañ cee am bañ cee gis suñu bopp genn yàq bañ ñu cee toppe nu mu def liggéey bi nag su neex na ma waaw lim fi bàyyi itam maa ngi ciy soññ sama bopp di soñ ñëpp kenn képp koo xam ne bii man nga ko lam la batalee muy ak jub ak foo nekk noppal nit ñi ci fexe ba doo dem kaso tey liggéey lu lew loo mën a dimbali ko nañu ko def képp ku ko ci man woote ci turu sëñ bi rawatina nag loo xam ne benn sëriñ yëbalu la ne la demal waxal ma ko ndax man doomi sëñ Saliou yi man gisuma leen ñuy jox seen baat kenn gisuma leen itam ñaa demal wëral kenn di ma la laajalal dara gisuma leen ñuy kenn fenn duñ gën a yaan duñ dem fenn man day ginnaaw sëñ Saliou di di di woote luñ naa dañ ko koy defal ci ay daara wala dañ ko koy defal ci gàmm wala dañ ko koy defal ci leneen man daal loolu dëgg na fi waaw li tax mu dëng fi ma man damaa gisu woon sëñ bi doon ko def kon du sariya doomam yi day mel man gisuma ñu di ko def am addi yiw bu daal man xam naa ko wala daayira boo xam ne dañuy dem jëbbali ci loolu man xam naa ko waaye wërdi laaj ak internet man de du ma ko def képp koo xam ne sëñ Saliou moom wala yow may sa jëwriñ sëñoo ko def waaw ku ko man a bàyyi itam man bàyyi gi moom a gën a doy ndax lëj-lëj yi bari na coow yi bari na waaraatekat yi bari na ñiy wax ci Sëñ Tuubaa loo xam ne bii tey nga ko mos a dégg bari na ndax man weeru koor wii ñu génn gis naa benn télévision mu ni si laat defe naa tudde na Sëñ Tuubaa maam jaara la ko ma fanweeri doom te loolu day sànq ki ko gëm mosoon na dégg ci beneen télé ci at yaa ñu ci ginnaaw ku ni maam maam maam Marème Jaxate waajuru si laat mooy waajuru si laat mooy waajuru Sëñ Suwaybu mooy waajuru Sëñ Abdu Baaxe mooy waajuru soxna Taay te maam Mariama Jaxate ñaari doom la am muy suñu soyebu ak ak suñu Abdoulaat ñoo ñu mu waxaat maam Faty Jaxate mooy seen waajur suñu soyebu lañ bokkal te yow ginnaaw mag mag gone yu bari defe nañ mag du fen ñu bari defee nañ ne ko di suñu soyebu nee na kenn ñu mu ko wax lu dëgg gone yi jigéen ñoom dañuy làmb rek mattaku mattaku sagar ak gi taxal den taxoon guddi lañuy def loolu daal day mel ni man tabax kër jëralu ma ko siiw jëru ko fi man am mbooloo jëru ko fi man tayit du sax maanaam li ngay ci dëgg mënut a sax biddew la bu fekk boo xam ni carrière lay àndal bu carrière balaa na mu daal waaw yàlla na suñu tuutiwaan nangul tax na man damaa bëgg ñëpp bu fekkee suñu taaloo kenn yaakaar naa ne mën na sëkk kook ngeen doon dégg muy wax mooy Serigne aboo Guèye mu Serigne Saliou mi nga xam ne moom lañ leen waxoon ne moom lañu fekk ci barabam yi nga xam ne ci lay wéyalee liggéey boobu Serigne Saliou defoon ci moom ñu jóge Touba Ñànka ñëw fii ci daaru tanzil di lenn ci barabam yi te ci loolu lay xëy ci lay gont dégg li mu wax léegi rek bi muy seede ci sëñu saa nee na sëñ Saliou yor njërëm kon ñu ngi lay sant bu baax di ñaan yàlla sunu borom yàggal la fi te wéral la te yéene ji nga am it te def ko ci njaboot gi ak ci taalibe yi ak ci dongo yi ak ci képp ku bëgg a jëriñu yàlla na la ko sunu borom defal jërë ngeen jëf.